jërëjëf dañoo daje tey may euh, njëkkee di féliciter tous les camarades de la convergence des cadres républicains parce que tey bu ñu point de presse bi ñoom ñëpp teew nañ pour faire ce moment de clarification qui est aussi possible boo xamante ne dañu war a leeral lu bon de camarades maa di remercier ci seen taxawaay di remercier aussi son partenaire de la presse parce que Tay, ñëw ngeen pour dégg li ñuy leeral ci situation bi xamante ne ci suba ba léegi am na ñu ko taxawee bëgg a jaxase xelu Sénégalais bi ñuy euh, laaj réew mi en 2012 bu ngeen ko fàttale si ñetti ponk yi ñu waxon sénégalais yi ne bu ñu taxawé danañu ko teg ci réew mi ponk bi ci ëpp solo moy ñu taxawal un état de droit bo xamé né transparence ak reddition des comptes officiels bon sénégalais ñu dénk réew mi dénk ko son excellence le président Macky Sall ñom effectivement ñoko dolel pour que mu taxawal ci dëkk bi leer ak léral bon dëkk bu ñu taxawé

yaakaar naa justice bobu moo def liggéeyam ba am lu mu teunk ci ki xamantene moy mooy euh, Karim Meïssa wat boobu ba legui nak li suñu justice def fu nek jaar nañ fa pour djem ko nasaxal mais fuñu dem rek ñu ne len liñu def Sénégal en matière de justice kenn muñu su si génn benn virgule ñu continuer nag effectivement sen pexé ba tay ñu am lu bees luñu ñu liñu li ñu moy li xamantene

amna expertise ak xam-xam bo xamantene war na xàmmee recommandation ak décision de justice benen bi moy comité bobu dafa woote lol avec conseil des droits de l'homme des nations unies bo xamantene Sénégal mi ngi ci bir Sénégal sax moko wara présider ci donc bir euh, bu gatt ñu wax né nak ñun suñu wareef moy ñu léralal sénégalais yi que ne fiñu tollu ñoñu ñooñu yore lenn rek effectivement mooy seen taxawaay mooy fexe ba les justices sénégalais bi décidé pour leeral effectivement nan lañu yore deniers publics sénégalais yi loolu la effectivement du fi am ñu nag li ñu Sénégal dénkoon loolu la bataille doxe ba tey mooy fexe ba dërëm bu Sénégal moom fait fu muy dugg ñu ramener filer au la war a dugg ku ko dugal feneen foo ko warul dugal itam ñu taxaw

di dox pour ñaan ñu may ko grâce xam la la convergence des cadres du parti taxaw immédiatement de manière réactive pour wax ci mbir mi te mbir mu amati pour nasaxal liggéey bu bi son excellence le président Macky Sall di def suñu immédiatement pour donc euh, indi la population parce que encore une fois le président Macky Sall a mu jëlee en 2012 à fa ko Sénégal yëpp gis nañ ko en tant que cadre du parti nous devons nous faire nit euh, tilimal ko nous lañ donc donné ko donc comme élément d'information pour faire qu'un maître Sen ait aussi le mouvement a au plan technique juridique Nous vous ko pour 5 minutes après ngeen bu ngeen amee bu laaj ngeen laaj.